salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wu mag wi di ñaan sa boroom gërëm jëf yi te nangu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke xadimu rasul bokk yi lii jataayub waxtaan la boo xam ne ñi ngi ko duppee yóbbal buy jagal di bégal tey xamal ngeen di ci ànd ak Ahmadou Diong Baye Diagal ànd ci ak Baye Diagal TV ak Carrefour jagal de Mbacké nu am yéene ci di leen gaaral ay jataay yi waxtaan yoo xam ne dañu caa fas yéene mottalante ak askan wi tey ñaan sa borom defal nu ci ndam yu kawe sunu njort ci barke xadimu rasul yóbbal buy jagal tey bégal nu amoon yéene waxtaane tey njàmbaar njàmbaar bokk ci jikko yu tedd yu màgg yi nga xam ne moom la as gor di jikkowoo ba mën a sàmm ngorom moom la ab jullit di jikkowoo ba sàmm diineem moom la ab taalibe di dimbandikoo ba mën a làq ay ngërëm kon njàmbaar lu am solo la bokk yi njàmbaar nit da koy am rab ak bàyyi ma di ko am moom njàmbaar moomu nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane bu fekkoon na daa mel ne koy ami way jur di jur ay doom dañuy wax ne njàmbaar mooy doomi jom ak fit dañuy wax ne njàmbaar mooy doomi jom ak fit ba mu juddoo ñu nàmpatal ko ci ngor yar ko ci xel tàggat ko ci xam-xam mu yóbbuloo sant ak muñ bu màggee lépp lu mu tàbbi làq ci ay ndam te bokk yi ndam moom la as gor di wut ci àdduna moom la ab jullit di wut ëllëg yowmal xiyaam ca kanam sunu borom tabaaraka wa taxala yàlla na nu ko ci yàlla defal. lii mooy jataay bu njëkk ci seen yóbbal buy jagal buy xamal tey bégal ngeen di ci ànd ak Ahmadou Diongue Baye Diagal ci bay Diagal TV rajo Carrefour Diagal de Mbacké salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.